li ñu diglante woon ak yéen di ngeen ko gisal seen bopp ci lu soriwul rek di ngeen ko gisal seen bopp ci mandat bi yépp ndax gor lañu te duñu wax muy dañ te benn xeetu politique bi ñu xamoon dina dañ ci Sénégal ba faw gëm naa ne bu ñu paree def na ñoo tax taxaw ci askan wi leen jox leen ma gis ku ne di yooxu ku ne di yónnee ñu lay waxal ma bëgg dalal seen xel fii dara du fi yëngu ndax dal rek a fi am jàmm rek a fi am ñaareel bi waxoon nañ leen nii lii nga xam ne mooy li ñu yàlla wërsëgale ci alal lii nekk ci or lii nekk ci zircon lii nekk ci phosphate lii nekk ci pétrole lii nekk ci gaz ak yeneen ak yeneen ak li ne sax ci suuf si nga xam ne ñu ngi koy dagg di joxe mu am ñenn rek ñu ko sedd woon wala ñu dem lënkaloog ay waa bitim réew ci anam yoo xam ne baaxul ci réew mi ñu ne leen woon bu ñu ñëwee dinañ ko saytuwaat lu ci dul yoon ñu delloosi ko ma gaaral leen ni ñu nga ca loolu te ci fan yii di ñëw di ngeen gis liggéey gi ñu ciy liggéey ñu waxoon leen ni dinañu liggéey ci li nga xam ne dina yenni askan wi dina wàññi coono askan wi ci li jëm ci dund gi loole ñu ngi ciy liggéey ànduñu ceeg benn pression nag waaye ñu ngi ciy liggéey te ci fan yu néewar dinañu ñëw ne askan wi résultat baa ngi nii ci li mën a nekk tey ak li mën a nekk ci kanam ak li nga xam ne dañ koy liggéey dans le long terme ñu waxoon leen ni dinañu góorlu bu ngeen ñu wóoloo ba dénk ñu fexe ba li nga xam ne mooy yitte yi wala li nga xam ne mooy li ñuy jiital mooy lu ñuy def ba dajale koom gu doy dugal ko ci mbay mi dugal ko ci càmm gi dugal ko ci napp gi jaare foofu taxawal li ñuy wax industrie ay usine ba loolu mën a jur ci réew mi koom te lu jur koom andi liggéey lu andi liggéey wàññi ndóol liggéey boobu ñoo ngi ci te lii ma wax ni yëpp ñoo ngi koy tënk ci ñaar lu matul ñaari weer ñu ciy liggéey liggéey goo xam ne amul noppalu